yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa auzu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare bu baax di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ak mbooleem kilifay diine yi ci senegal ak mbooleem ñi ñuy teewlu ak di ñu seetaan ñëpp di ñaan weeru koor gi yàlla na suñ borom def ñu yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te suñ borom defal nu yoolu koor weer yi te nangul na suñu koor euh, tey nag ñu ñëw ak yéen ci lan mooy euh, waral euh, nit ki bañ a woor ni ko alxuraan waxee rek koo xamante ne da ngaa feebar wala nga nekk ci ab tukki man kaana minkum maridan aw ala safarin nee na képp koo xamante ni da ngaa feebar wala nga nekk ci ab tukki eh, maanaam koor dalay wàcc waaye nan la la koor di wàccee nag ndax ki nga xamante ni daa tukki wala ki nga xamante ni yàlla dafa dogal mu mu mu feebar Euh, ki nga xamante ni daa feebar bu fekkee ne maanaam daa feebar ci bis ba dañ koy wax ne ko mën naa dog ndax bu fekkee ne wér-gi-yaramam may ko mu mën a woor waaye nag saa bu demee ba tane bu koor gi jeexee day fayaat benn bis booba bu fekkee ne itam nit ki bisu maanaam euh, dafa dafay tukki tukki boo xamante ni bu sori la te mënta woor ca tukki ba may nañ ko itam mu bañ a woor ca bis booba waaye su woorul itam bu demee ba koor gi jeex bis booba da koy fay ndax bis booba maanaam koor googa wàcc ko waaw loo xamante ni la benn fan rek la ciy fay day wuute nag ak ki nga xamante ni maanaam euh, daf koo tey ba noppi dog ci biir weeru koor kooku moom dañ ko dafay kafaara mooy su wee su weer wi deewee day fay waaye ñaari weer lay fay ndax moo ko tey dog ko ci biir koor ga ndax koor moom ku ne xam na ni farata la ci jullit bu nekk comme niñ ko waxee woon ci émission yi weesu ni ko alxuraan waxee ne waral naa ci yenn jullit ñi koor comme ni ma ko waralee woon ci ñu leen jiitu ndax bu ngeen ko defee ngeen ragal yàlla kon lu war la ci bépp jullit boo xamante ni mu kàllaf la am na xel te mat na majeur na kooku dafa war ci moom mu woor bu dul ne koo xamante ni dafa dof wala kii nga xamante ni xëy na dafa dafay say wala koo xam ne dafa xëm waaye yooyu yëpp ñoom bu ñu noppee danañ ñëwaat ci beneen émission boo xamante dañ ko gën a yaatal am na ñoo xamante ni noonu lañ leen di attee ak noo xamante ni noonu la ñuy fayee waaye nag kii nga xamante ni moom yàlla dafa dogal feebar dab ko wala mu nekk ci ab tukki boo xamante ne tukki bu sori la mënta woor ñaar ñi moom euh, maanaam dañuy mën nañoo dog ca biir koor ga bañ a woor waaye nag su weer wa deewee dañ koy fay du loo xamante ni da leen di wàcc définitive waaye nag saa yu weer wa dañuy fayaat ñaari fan yooyu nga xamante ni wooruñu ko woon waaw ki nga xamante ni dafa feebar te yàlla dogalit bu fajoo mën a mën a woor kooko ba tey euh, lislaam da koy topp ci mu woor waaye nag euh, kenn ku ci nekk itam ku ku koo xamante ni yàlla dogal na nga mën a euh, leel juróom-benn fukki miskin bis bu nekk maanaam danga koy def juróom-benn fukki miskin yooyu mooy ki nga xamante ni moom dafa feebar bu munta woor moom jàpp nañ ni moom du mën a woor kooku moom moom day leele waaw leele googu nag moom mooy tax maanaam koor gële mën koo wàcc waaye nag képp koo xamante ni da ngaa feebar te mën a faju wér mën a dellu siwaat fay weer wi da jàpp koor bu dee ku mel ne ku wàccoog yu ni ma ko waxee woon sànq kooku moom bu fekkee ne am na dara lu jàll ci pëlam kooku bis boobu ma maanaam du lekk du naan day ànd ak nit ñi ci koor su demee ba ngoon jot bis boobu moom bu demee ba weer wi jeex da koy fayat waaw waaye nag du tax bu fekkee ne dafa wàcc wala dara dara jàll rek mu ne damay wéy di lekk déedéet kooku du lekk du naan waaye saa bu demee ba koor gi jeex nag bis boobu moom dafa xam ne day xam ne wàcc ko su ko defee da koy fay yóbbalu bis bi xam naa dañuy ñëw ci euh, ay waxi Serigne Touba yoo xamante ne waxoon na ko dafa waxoon ne dénk naa leen euh, juróom-benn yoo xamante ni moo gën ci yéen juróom-benn téeméeri mën naa leen a defal juróom-benn téeméeri njariñ uusikum bi sittati kalimatin fii inna sittati miati faidatin moo gën ci yéen. juróom-ñaar juróom-benn téeméeri njariñ dal ne istaala naasa bil fadaili fastail anta bil faraidi nee na nit ñi bu ñuy daw ci di njëkkante maa la gën nee na yow dawal nga njëkkante ci jëfey faratay suñ borom yi nee na bu doomu aadama yi di njëkkante kenn ku ci nekk di tàpp dënam di wax ne maa la gën ndax ci askan sàngam laa bokk wala nii laa mel nee na yow dawal nga njëkkante faratay suñ borom yi loolu la la yàlla sant ñaareel ba mooy istaalat naasa bil euh, bil bil xalqi fastahil anta bil xaaliqi nee na su nit ñi di daw di njëkkante mbindeef yi yow dawal nga njëkkante borom mbindeef yi mooy suñ borom ndax saa yoo amee yàlla rek danga am mbindeef yi ndax sëñ Tuubaa dafay bàyyi woon nit ñi bàyyi fi la ci loxoy nit ñi jëm ci boromam suñ borom bi mu demee ba ci moom ci la ko wammatal nit ñëpp nangul ko moo tax su fekkee nit ñi dañuy daw jëm ci doomu aadama yi di leen sàkku yow dawal nga jëm ci sa borom. yàgg-yàgg doomu aadama yi danañ wëlbatiku dellu siwaat ci yow di la sàkku istaxala naasa bil eh, istaxala naasa bil ilmi fastaxil anta bil amali bu nit ñi daw njëkkante di wax ne maa la ëpp xam-xam man nii laa toll wala lii laa am lii laa am ci xam-xam yow dawal nga xënte woo la nga jot a xamakus néew te muy lu baax nga fexe koo jëfandikoo fexe koo jëfe loolu rek moo am njëriñ ndax nit mën naa am xam-xam bu bëri te du ko jëfe waaye nag yow bu nit ñi di daw di njëkkante am xam yow dawal yow la nga xamakus néew nga daw njëkkante ci jëfe ji loola bu nit ñi di daw di jëm ci zaahir dawal nga njëkkante baatin mooy nit ñi bu ñuy daw di njëkkante àdduna jii ñu xam yow dawal nga njëkkante woo xam sa borom ndax yàlla dafa wax ne xam ma njëkk nga may jaamu xam yàlla gi nag mooy nga sax ci jaamu yàlla ba suñu borom wuññil la kiiraay yu nëbb yi nga mën a xam kasfu xam li nga xamante ni mooy li nëbbu ci ci ci ci mbirum suñu borom bu nit ñi di daw di njëkkante àdduna nee na yow dawal nga njëkkante àllaaxira nit ñi bu ñuy daw di njëkkante àdduna di ci wut loo xamante ne du leen doy mukk ndax nit ki saa bu xëyee lu mu mën a am lu mu bëri bëri doy ko borom milliards yi tey ñoo gën a sonn ñoo gën a mën a bëgg xaalis ñoo gën a mën a daw ci ginnaaw alal te la ñuy teg yépp ak la ñuy wut yépp seen doona rek la ndax bis day ñëw ñu bàyyi ko fi ñeneen a koy donn ci seen ginnaaw moo tax bu nit ñi di daw di njëkkante àdduna jooja nee na yow dawal nga njëkkante àllaaxira ndax àllaaxira moom dara du fa doy te du jeex bu mukk nee na euh, bu nit ñi di daw di njëkkante di xool ayibi jàmbur yi yow xool sa ayi bopp loolu sa ayibi bopp doy mooy diw nii la mel diw nii lay doxee wala diw nangam nangam yow dawal nga xool sa ayibi bopp ndax kenn ku ci nekk boo lijjante sa ayibi bopp rek dana la doy ba doo soxla bi jàmbur kon nee na bu nit ñi di daw di xool bi jàmbur yi yow dawal nga xool sa bi bopp mu doy la sëkk ba nga sax ci jaamu yàlla te góorgóorlu si kon loolu mooy li nga xamante ni mooy kàddu yi ñu doon dénkaane tey ci yóbbalu bis bi خير ضيف mooy guddik ñeenteel bi man salla fiha arbaa rakaatin yaqrau fi kulli rakaatin bi fatihatil kitab wa xul yaa ayyuhal kaafiruuna salaasa maratin laa yaqum min maqaamihi xataa yaxfira allahu lahu zunubahu nee na képp koo xamante ni julli nga ci guddik ñeenteel bi ñeenti rakka rakka bu nekk nga jàng ci faatiha jàng xul yaa ayyuhal kaafiruuna ñetti yoon ñeenti rakka yi nag ñaari sëlmal lay doon mooy da ngay julli ñaari rakka sëlmal julliwaat ñaari rakka sëlmal nee na képp koo xamante ni def nga ko euh, ca jotaay ba mu nekk laataa mu faa jóge suñu borom dana ko jéggal bépp bàkkaaram boo xamante ni jëfoon na ko ci digganteem ak boromam kon loolu rek jar na kenn ku ci nekk nga fexe góor góorgóorlu ci farlu ci bu baax ba dem ko def yàlla nañ suñ borom defal dégg ak topp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu xayra day fi naata bil bisri wal madadi alan wa sahlan